ci ba xaw lay ab xaani li ma ci lay tubaab yi ko suuloon ba ba classé tàmbalee classé dossier yi benn tubaab ba doon dox ci àll bi fekk maa ni gaynde Fatma mu julee ka kabar mu xool ko ba xam ne mooma ñoo ca seef ba ne ko ki ñu suuloon barki démb romb naa ko muy kabar tubaab yëpp àndandoo di xool ndax dëgg la fekk Serigne Touba ñu delluwaat ñu ne nañ ko nañ ko fital nañ ko fital benn yoon yeew ko ci garab fukki nit ak ñetti wër ko kenn ku nekk diir genn wet war tiire sa waa bali waa bu fii sulasa maa yox jirul asara wa salasa yàlla may na ma ci bisub talaata boobee lu gàcceel fukki nit ak ñett yow ma doon fital ndeysaan tukki bi suuxal nañ sëñ Tuubaa ci ndox mi dañ koy teg ci gaal moom sëñ Tuubaa jël barigo bu ñu feesal ak xeer kasse ko yeew ci buum yeew laxas ko ci kaw sëñ Tuubaa sànni bari bi ci ndox mi sëñ Tuubaa ne ma fekk ndox mi dem naa ba ca bal ba waaye bi may bëgg a wax ak yàlla seen naa rasulullaay muy xotti géej gi ñëw ci ma naan ak mbégte te mbégteem rasulullaay daf may fàtteloo loru noon yi tafsiroo dara daal aday ansaana ne ñu ne ma cas ci gaal gi sama yére tooyul ne ñooña waaru ñu teeral ma sëñ Tuubaa nee na yëguma lu dul soldat yi romb ma ku romb danga naan grand marabout merci kon ay waa ngay bëgg a jeex ndeysaan grand marabout merci sëñ Tuubaa ne ma ne waaw merci ji may ji may moom lu mu doon yàlla na ko jàmm la de lillahi rabbul arsi wa rabbu sama laka saraftu merci wa jërëjëf eh merci mooy jërëjëf kan sëñ Tuubaa jël merci tegu ko xasaayit mm. merci mi daa di mim nga mi daa di waxlaami waxal wa jusmaani li muxnin badin li sakra asmana rabi rabayi kitabun jaana minu muhkama ata min rahimin labisal xeyr rahmana jël siin gi sukure fi daaray ni wa doo alam bi abqa fadi wa jusmaani wax leen merci sëñ Tuba barakallah ñu war koo jël nag war léegi sërite lay indaale. waaw sërite bi nag 11 mm. novembre fii. sërite bi nag. lan la indaale. sërite bi nag. Mm. murid moomuñu ko. Mm-hmm. sërite bi. dëgg la ku bëgg ci sëñ Tuubaa ci nga bokk. dëgg la. Mm. ijaal rujuu yi. ila xawmi saadatana. wal takfina yawma jami xalqi niiraana. eh dellu gi may dellu ci ñoom na doon seenug dem àjjana. te na nga leen ci fegal sawara sërëjë bu duum dana taxa faat nga fàtte coonob tukki la nga daj ca tukki ba sërëjë bu rëy bi dana tax nga fàtte coono ba dëgg la waaye bi mu ne cëpp fii moom sëñ Tuubaa yàlla ne ko yow laay waxal say noon lañu ñoo tooñ yóbbu la dina jéemal mënaluñ la dara maa ci des loo ma wax ci sa noon yi ma def ko loo ma wax ci sa noon yi ma def ko yonent Yàlla Nuux nag am na lu ma santoon def naa ko rabbi laa tasar alal ardi minal kaafirina dayaaraa gaa yewet di woon Nuux te daan ko sonal ñu nga dee ca ndox ma sawara lañ jëm yonent Yàlla Muusa Firawna ko bañoon ca ndox ma la mujj ca la faatoo sawara la jëm yow sëñ Tuubaa yow Xaadimu Rasuul noonu yii la yóbbu dara yóbbuwuñ la lu tax ñu yóbbu la mooy laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam looloo tax loolu rek a tax ñu yóbbu la mënaluñ la dara waxal loo bëgg ci ñoo ma def ko sëñ Tuubaa ne jéggal naa leen oh. afawtu anil a'daa'i turan li wa ci man nafaahum li xayri sarmadan la soot faw barkallah san Pape Cheikh waajango Cheikh Sadbou du ma tàggoo di sosi riim ah. Serigne Touba dikki nu siim dikki nu taal ba dunu giim wàcc ngeen sangi xaadim soppeb sa ngubbani yaasim sol nay fóore fali yaalim Serigne Touba moo di karim dara jaam dara du ko tiim fu mu dem jële fak neen ku ko am dootoo séeneen Serigne Touba amul feneen xol bu mu ne du gis leneen mm. rijaal yi mbàkke doo seen moroom lim bu takku ci ñoom dee seen a boom ñi ñoo alak leen fab seeni koom bamba du ñoom te duñu moom jërëjëf sëñ Tuuba wallaay wax nga dëgg barakallah si saan bamba du ñoom te duñu ñoom wala Pape waaw yàlla yaakaar naa tey ñëpp bég nañu macha allah Jibril Njaay ca New York nee na jibi